K24 Info, l'information sur mesure. xanaa day laajte aada doo xool da ngay laajte du ma la wax dara na semba si asina loole njëkk a cëpp doomu njaago du dof ma wala nu mboos ma njagu ganaayaf da ngay dof dof lu yow di nga xibbi say bët xool hey dof bi ngay waxal de pël bu dox njaago bi pare rek yow say mboq maa lay seetaan démb nga indi ay jaan indi ay. indi lépp esaat. te xool maa gën a pare dama koy. voilà. da ñëw rek na lépp ñëw seen see xoola di laa war a sóoli leen ko jaani ñëw ma walla ni yow yàggoog jaan. d'accord. Eh, eh. 24 Info, l'information sur mesure.